يكافئه والصلاة والسلام على من نظم المجتمع المحتار حيث يقول ونظم المجتمع المحتار لا ظلم فيه لا ولا إنكار وقال للروح تقدمي ولا تلتفتي لغير ما ثم على وقال للأخلاق فلتتبعي سبيلها من دون أن تبتديه وقال للمادة فاقديمهما ولا تحالف الحكيم فيهما وعلى آله وصحابته أجمعين بوك جلتي بوك ييغا خامل ينا باخو دي سيتان بريستيج تي في نيغي لين دي لين زيار ديل سوات اكتايسين تاي تفسير القران ديكو فرام فاكي بن بار بن با نين ديك ñu nuyu kilifa kër gi nag Pape Doumbia di ko ñaanal rek la mu mbébét ba tijji lii moo ko xam yàlla na ko yàlla yumb fa kawe ci barke Seydina Muhammad tey nag ñu ngi jëm ci aaya bi nga xam ni yàlla def ci wax ñi nga xam ni dañu bëri ni ñuy interpréter lu leen amul njariñ te mooy munaafiqu nii yàlla bind yoo mais ñoom ñu ni yàlla màggaayam ak darajaam ak ni mu toll ban importance la am mu bind yoo ci planète bi ak lu fi yoo di jariñ yàlla ni leen di ngeen a xamul rek mais amul lenn lu may bind ci kaw àdduna teg ko fi lu dul am na rôle bu muy jouer yàlla ni nag bind gi ma bind yoo teg ko ci kaw suuf boroom xel yi mën nañ ci jàng ba am ci leer waaye ñi nga xam ni duñu utiliser seen conscience mën nañ ci réere yàlla li leen nag awma kersa ci bind yoo wala ma bind lu sut yoo da nga ko déggee ni doomu aadama lépp loo xam ne mi ngi ci planet bi rek mën na cee jàng yàlla moo xam yoo la moo xam weñ la moo xam melentaan la moo xam sankañle la te ñoom ñépp ay nation lañu am comme ñun tey bu benn melentaan rek bu décédé woon benn benn melentaan di gis espace un intermédiaires yeeg yëpp melentaan yi joxante ko seen biir ne melentaan diw émettre dëgg nañ ko waaye ñu ko dëgg ci bërëb bu ñuy wax Sénégal diw moo ko tàgge mala melentaan ko kon yàlla suñu borom lu mu def rek am na ko waral moom la bëgg jàng nii mu inna allah laa yastaxi an yadriba mathalan ma baxuda fa ma fawqaha yàlla amul kersa ci bind lu toll ni yow wala lu ko sot parce que xam na ni yow am na njariñ ci planète bi am na rôle bu muy jouer moo tax mu bind ko fa ma lazina amanu fa yaalamuuna annahu lxaq nee na ñi nga xam ni gëm nañu yàlla nag ba pare di utiliser seen conscience fu ñu toll ñoom dinañ xam ni yow gi yàlla bind dafa am lu ko tax a jug te dëgg moo ko tax a jug te xam nañ ni dëgg la goo xam ni dafa juge ci borom bi wa amma allazina kafaru nag ñi weddi yàlla nag ñoom fa yaquluna maza arada allah bi haza masalan ñu naan yàlla ban importance la am muy bind yoo ak lu mu ci namm yàlla nee na yoo boobu ak leneen lu dul yoo doo ko tënk ci yoo kase yoo boobu ak leneen lu dul loo xam ne yàlla bind na ko mala bu mu mënti doon nag ah yàlla nee na yooyu garab yéeg yépp dugg na ma bind dina bëri ñoo xam ni dañ ciy sànku waaye dina bëri ñoo xam ni dañ ciy jariñu mhm. yudillu bihi kathira dina bëri ñu sànq ci lool wa yahdi bihi kathir mais dina bëri ñu ci gindeeku wa ma yudillu bihi illa al yàlla nee na kàccor yi ñoo ñoo ci sànq kàccor yi te mooy ñan allazina mooy ñi nga xam ni yanquduuna ahdallahi ñu ngi ficc kóllëre yàlla te yàlla dafa sëriñoon ak ñun benn pacte mooy ba ñu ba mu ba ñu bindee ci azal ba pare yàlla dafa wax ak ruux yi ni leen alastu bi rabbikum xanaa duma seen borom ruux yépp ni balaa pacte boobu nag ku ñëw ci àdduna boo jaamul yàlla firi nga ko kàccoor yi nag firi nañu kóllëre googu min ba'di yi ginnaaw bi ñu ko dëggalee mais ñu firi ko wa yaqta'uuna ma amara bi an yusala ba pare ñu dagg li leen yàlla digal pour ñu jokk ko ci wàllu mbokk yaa ngi dégg toujours ñuy jàng aaya ba wattaqullah lazi tasaaluuna bihi tasaaluuna bihi wal arham na ngeen ragal yàlla mais na ngeen sóor mbokk gi aussi tamit sàmm ko yàlla nee na ñooñu ba tey wayuf si duna fil àdd ñuy dox ci kaw suuf bi yàq rek kum mënti doon rek moo xam ne ngaa indi loi boo xam ne islaam nangu ko wala nga am doole am lépp ba pare yàlla may la xel may la lépp ngay utiliser sa conscience di nax nit ñi di jéem a xool noo dégager diine islam di jéem a xool noo fi jëlee ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci bopp diine bi ah yàq ci kaw suuf dafa yaatu yàlla neen ulaayika humul xaasirun gaa yi ñooy perte ñoo ñi nga xam ne perte nañ léegi yàlla bi nga wax ak ñi nga xam ne dañuy weddi dekk di wax ak ba tey ñi nga xam ni dañuy weddi li yàlla bind yàlla ni nit jaar naa ak moom foo xam ne bu amoon xel lu ma ko wax war na koo gëm xoolal doomu aadama tey xoolal yow fan nga jaar ba ñëw yàlla ngi la bind bi ci benn toq mën bind ci góor bind ci jigéen bu ko yàlla développé wul woon du dem mais suñu borom ci kàttanam mu koy développé ba nit xëy màgg xëy am kàttan am taxawaay yàlla jox la lépp mais boo dee nit war nga xalaat leneen lu dul problème mu dekki war nga xalaat leneen lu dul li yàlla teg ci kaw planète bi da nga war si jàng yàlla suuf da ci war a jàng yàlla asamaan da ci war a jàng yàlla benn borom xam-xam wax na ko mal ardu illa aya min rabbiha hal tudrikul ayat bil absar nee na suuf wala asamaan nee na dañ ci war ay preuve la yu ñu war a mën a jàng yàlla mais est-ce que jàng yalla bobu ci suñu beut le kase lay yam beut duko jang mais xel koy jàng le faire mu ni billah nan ngeen pourquoi ngeen weddi yalla ak nan ngeen wedde yalla wa kuntum amwatan ngeen nekkoon ay toq dara ma jël jibril comme niñ ko waxe suñu tafsir be passé Jibril nekk ci di xool nu mu war a développer nu mu war a màggee bu laajee ordonance bu mu ko war a jox mu jox ko bu laajee analyse bu mu war a def ci biiru yaayam mu def ko yàlla ni nag nan ngeen nan ngeen may weddee ngeen nekkoon ay ma ni am waatal doo ko firee ay néew mais da koy firee ay tokkuma ni fa axyaakum ma développé ma ni boobu bi mu nekkee ci monde jigéen su su ma yuxiikum ma dundal ko su ma yumiitukum hmm? boobu ma yàlla nee na man maa développé toq ma ni boobu dundal ko su ma yumiitukum ma rey ko su ma yuxiikum ma dundalaat ko mu dekk ñëw yor maxyaam dundal naa ko ah rey ko hinda intihaa ajalikum ba ngeen demee ba daye ba jeex su ma yuxiikum bil baas ma dekkalaat leen ah summa ilayhi ma dajale leen nag def na leen dajale ci borom bu tedd boobu muy yàlla huwa allazi xalaqa ma fil ardi jamian lépp lu nekk ci kaw suuf rek yàlla ko bind su stawa ila sama mu yemmoo ci kaw asamaan fa sawaahunna sabaa samawaat mu yemale ko mu nek juróom-ñaari asaman xam nga asaman juróom-ñaar la suuf aussi juróom-ñaar la mais yalla fu mu waxee asamawat da koy jàmm moy da koy def pilier waye bu wax ardu du ko def pilier mais da koy def mufrad singulier da koy def parce que suuf si dal buñu ñu la juróom-ñaari suuf la dal buñu ñu asaman nak ñaari planète yu bokul la yàlla moom nag ku am kàttan la ci bind loolu bàyyi na lool léegi ñu ngi wax ci responsabilité aadama buñ nee aadama nag nit ñëpp dugg nañ ci biir parce que ñun ñëpp ci aadama lañ jóge fi yàlla jaar ak aadama ba nome ko xam nga suuf dafa am ñu fi nekkoon ñu leen di woowee jinne yi nekkoon ci kaw suuf di reyante ci kaw suuf di tuurante deret ci kaw suuf lu bon lu nekk ñu def ko ci kaw suuf ba yàlla xamee ni ñii importance bi tax ma wàcce leen ci kaw suuf duñ ma jariñ ma ni xaaral ma jële leen fi ñoom ñépp préparé formé keneen pour indi ko fi yàlla jële leen fi ñoom ñépp toog ay diir ay jamono jamono ndeysaan fekk na mu ngi préparé aadama préparé aadama defal ko préparation bu mucc ayib ba mu ko préparé ba mu mat yàlla yëgalul malaaka yi tàggul malaaka yi mais di leen a yëgal ni leen nag suuf sama bàyyi woon jinne ya ñu fay reyante di fay yàq dama leen fa jële léegi nag dama fa am ku ma bëgg a yóbbu ci kaw suuf pour nommer ko mu représenter ma ci kaw suuf te aadama lay doon ñoom malaaka yi yaakaaroon nañ ni nomination bu waree am ci kaw suuf ñoom lay doon mais du doon nit parce que ñoom jàpp nañ ñi ñoo gën a tedd Adama jàpp nañ ñoo gën a mën a jàmm yàlla Adama Iblis moom it jàppoon na ni moom lay doon parce que Iblis service yi nekkoon ci kaw yépp yàlla daf ko ko joxoon jox ko responsabilité bu rëy Iblis ku mënoon a jàmm yàlla la ku mënoon a dundal diine yàlla sacrifier li ko sànq mooy orgueil folie de grandeur te ñu bëri nag di ko def si jamono ci nii laa mel fii laa juddoo nangam ak nangam yàlla rek moo war a rëy rëylu keneen ku dul yàlla waroo rëy rëylu iblis moom it ndeysaan ba mu xamee ni aadama moom la yàlla nome mu pare pour lank bañ a ànd ak moom ndeysaan comme nañ ko waxee yàlla ni ko kaay saliye ko bopp iblis lànk ni du ko saliye daw lànk yàlla ni ko comme génne dàq naa la mais dinaa la fay li nga jot a liggéey ba ko suñu boroom dàqee ba pare nag la mu ca teg mooy def ni ko dinaa la won ni ni ma nekkee traître noonu la sa jaam yi nekkee traître ñoom ñépp dinaa leen sacrifier kon gis nga Iblis bàyyil kenn bàyyil kenn yéenewul woon aadama loolu moo tax mu coup d'état suñu maam aadama nan la iblis coup d'état wee suñu maam aadama jaan ja nekkoon àjjana la fexe ba communiquer ak moom ni ko dama sama bagage yoo xam ne dama ko fàtte biir aljanna ma bëggoon nag nga dimbale ma ma jot ci ba mu ko dugalee aljanna mu jaar ak moom fa mu jaar ak moom ndeysaan ni ko nag ah maa ngi lay ndokkeel ci sa nomination bu rëy bii mérité nga ko parce que yàlla du jox kenn lu mu mérité waaye dama lay dolli rek ndax paaka lu mu ah lu mu kii niñ koy waxee sax paaka lu mu ñaw ñaw du tee dañ koy daas te li ma lay dénk mooy fii nga toog service yi nekk àjjana yépp amoo ci sens interdit waaye yàlla nag dafa am fu mu la tere te mooy garab gi xam nga lu tax mu tere la ko mu ni ko waaw mu ni ko xam ni boko lekke doto génn bir aljanna te puissance bi yàlla am dang koy am mu xawa jaxaso jaxasoo moom ne ko ah ki yag na kër yàlla lum la wax deug la xam nga jigen ñi ñooy duggal góor ñi ci duux doonu yu ne mu top xawaa ba ñu lekk garab ga yàlla wàcc leen ci ko suuf léegi nomination bobu nak yàlla moko jox mom adama mu nek mas'ul nek khalifa ci kaw suuf mën nga ko firee président mën nga ko firee leneen kon da nga ciy déggee ñun ñëpp ay xalifa lañu waaye nag bi yàlla yónnee aadama ba pare am na beneen ku mu jox responsabilité doo ko delloo ci aadama kase muy ruux ruux tamit yàlla jël ko ni ko jox naa la nommé naa la ci monde nit doomu aadama monde la ruux dem nekk président ci monde nit ba mu fa nekkee yàlla ni ko formel sa gouvernement ci planète doomu aadama ruux formé gouvernement jël xel nommé ko premier ministre ni ko yaa ma ci doy ndax sa xalaat moo mën a tax sama nguur gi jaar ci yoon xel moom it jël fikr ni ko def naa la conseiller ñu ànd ñoom ñépp formé gouvernement ci monde nit looloo tax allahu subhanahu wa taala استحلف آدم في عالم الكبرى واستحلف الروح في عالم الصغرى yàlla suñu boroom dafa wuutal aadama ci monde bu mag bii di àdduna mu daal di tourné nag ni ruux yow yónni naa la ci monde bu ndaw bi di nit monde bu mag mooy àdduna monde bu ndaw mooy nit ndeysaan soo demee daalee wax na ko wa xalifatun li yasira fiiha siirata almustaxlafi almustaxfasi almustahad ملك توازره الحجة ويمد جند بأنوار الغيوب مجند والكائنات رعية تجبى إلى تصريف فكر عنده متبدد وهوى بربة بيته حد الهوى وسطى بجمع من حزوز محشد فتكنف الملك البغاة متى يرمو نحبا يعاد على السدر ويفسد وتلذت الحرب العنوان فإن يكن حضر الملك وزير سدح يغدد مستنصرا بالرشد والتوفيق في عمراتها فثنى جموعهم وفلل عربهم بغرار سيف من حجاه مهند ديسان موي آية بي يالا تك موم لجل ديسان خلاتي بكري لول كون جسنجا يالا ني روح موندو نيت ياكو ديريجي موتاخ بي روح نكي تي موندو نيت amna كنين كوكو ko نكو سا ko sa gouvernement du fi neexe sa tànk ma teg fa sama tànk pour yàkkal la muy kan nafs bakkan bakkan opposé ruux dal di jël shahwaat yi am amaara bi suu ak shahwaat yépp yi nekk ci nit nommé leen ñoom ay ministre ñii mu def leen ministre conseil ñi premier ministre ku ci nekk formé gouvernement am ñi leen a tax a jug mooy nañu fexe ba ruux du fi neexlee loolu tax ñu ne alxalaqa bayna ruux wa nafs kaana ala xamasa tawwira relation bi am ci diggante bakkan ak ruux relation bu conflit la loola tax ñu bàyyi xel responsabilité yooyu nga xam ni yàlla jox na ko aadama ku ci nekk nag war na cee gis boppam fii yëg liggéeyoo ci réew mi ruru responsable dégage nga sa responsabilité bu ëllëgee yàlla dina taaj aadama ni ko responsabilité bi ma la jox noo ko sàmmee woo ruux ba mu ñëw ni ko ruux yow it dénkoon naa la monde nit te nit dafa bëri ay sec ay ay ay caprice monde ba ma la dénkoon nan nga doxalee gouvernement boobu taaj aadama taaj ruux looloo tax nit buy dee ruuxam di yéeg doomu aadama buy dee surtout ba waree taxe nag yàlla ni délégation malaaka yi préparé wu leen diw moo war a génn àdduna tàgge nañ ko 40 jours avant buñ ko indee nag boo waree texe ñu indaale benn mbalaan ak benn parfum bu jóge àjjana tuur ko ko sang ko ko yéegal ko ci kaw jël ruux bi ànd ak moom di yéeg ruux di delluwaat fa mu jóge yaram moom it di delluwaat fa mu jóge kon danga ci ciy déggee ni ruux ak yaram bokkuñu sax ñoom ñaar dafa mel ni portable bi nga jël rocci piis bi rek sànni piis bee am importance looloo tax yàlla bu lay dekkalaat danaan ruux demal dugg ci yaramu diw ma nga nekkoon kon ruux moomu am na responsabilité bu rëy parce que bakkan opposé na ko comme ni iblis opposé woo aadama comme ni malaaka yi opposé woo aadama ni du fi faloo yàlla ni leen nag la tax ma jël responsabilité boobu jox ko man rek maa ko xam moom la ñu bëgg a jàngal nii mu wa is wa fàttalikul yow muhammad is xaala rabbuka lil malaaka yi bi yàlla dajalee malaaka yi ñoom jibril nekk seen jiit mu ne leen inni jaaxilun fi ardi xalifa dama bëgg a wut nag ku ma représenté ci kaw suuf parce que jot na comme jinne yi laa fi tegoon te amuñu fulla amuñu fayda rayante seen biir jëlee naa leen fi aadama nag doy na ma ci lan mooy seen xalaat xaalu atajal fiha man yusid fiha ndax da ngay jël koo xam ni day yàq ci kaw suuf di ko teg ci kaw suuf du fa yam kase de waes fiku dima wayes fiku dima koo xam ni tour deret jaral na ko lu ne xoolal malaaka yi liñ ñu liñ ñu jugeel ñun tey ñun bëri na ay nomba yo tànk ñu la jox ci àdduna boo xoolee am na tour deret bu ko lal te ko rey bakkan te tegoo ko ci dëgg yàlla nee na sa punition mooy safara boo reyee bakkan nag te teyoo ko ah boobaa nag dédommage ngay def comme niko alquran alxuraan kere bakanta tayoko teyoo man yàlla indi nako ba mu jeex tak ci bir alquran xamna suñu temps bi ko may ñu développer bu ko defé way siku dima wa nahnu nu bihamdika ñun nak ñu lay sabbal nga bëgg ko jox adama wa nuqaddis laka ñu lay sellal qala yàlla ni len inni a'lam ma la ta'lamun man de xamna lo len xamul xamna lo xamni xam ne ko li tax ma tek ko fi man rek man mako xam léegi nak mi ngi jàngal bi yàlla di examiner malaaka yi di examiner aadama fan la jaar ak ñoom ak yàlla sana aadama la mu war a xam lépp ci biir àdduna ci keroog bàyyi malaaka ci biir aadama nag ndeysaan fa yàlla jaaroo ak moom yépp mu tourné tontu question yi ba mu mat sëkk te mooy lépp loo xam ne programme dund àdduna la rek keroog yàlla laaj na ko aadama xam naa loolu aussi tamit day laaj insha allahu rabbi ñu bàyyi ko ba beneen émission bii di ñëw ndax xam naa ne duñ ko mën a yaatal comme niñ ko mën a yaatale bu ko defee fii ñu taxawoon nag dafa nekk loo xam ni kenn mënu koo jàll kenn mënu koo jàll te expliqué woo ko parce que nit ñi xamuñu seen valeur xamuñu seen responsabilité ci àdduna looloo tax aaya yii buñ ci accès rek ñu fàttaliwaat nit responsabilité am ci àdduna pour mu mën ci dëgg ba xam fu muy teg tànkam ba ba bu ko defee du sànku du réer incha allahu rabbi ñu préparer ko rek prochain tafsir expliquer examiner boobu yàlla defoon aadama ba nommé ko ña ca àndoon ànd ca ñeca ca xam ne ànduñ ci woon nag reculer bu ko defee ñu préparer ko rek bu defee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi nuyu sama xarit sama doom nday Ablaye Traoré mi ngi ca grand stand di nuyu Ablaye wax dëgg yàlla sama xarit moom it daanaka moo may ñëwal moo may defal lépp